maa ngi lay bëggee kilifa gi. waaw maa ngi lay delloo ziar. yow amateuru làmb nga ah. làmb la waaw. Mhm. man la Matar Sakho. ok supporteru Lagros. Lagros bu Fass waaw ak Siteu. ok ñu nga ci maanaam tëgg lamb kenn bañ seetaan. non ànd ndax Siteu buy bàkku rek man damay daf may neex bu bàkku rek damay bëgg génn dem quoi. ok ndax bàkkoom daf ma neex. ak ni muy defee si biir lamb njaab yi. Mhm. loolu daf ma neex Siteu. Mhm. ba pare Siteu ni muy bëree daf ma neex Lagros moom siy bëree day attaqué sa koñ sa gañ moom li la dafa leer. nag comme jóge nañu asalam dugg si marché Colobane fii tamit ku ko xam-xam ne gars dañuy dund lamb kilifa gi maa ngi lay ziar. la. man Cheikh laa tudd sant Diouf. ok lamb bi huis yaa ngi koy dégg boobu ba tey maanaam ndax li ko waral corona bi yéen en tant amateur yu dund lamb wala ay sénégalais est ce que ànd ngeen ci lamb ñu togg ko ci huis clos wala déet. waaw moom maanaam suñu sport cosaan la ñu loolu lañ xamoon ci làmb quoi mais bu ñu demee def ay huis làmb yooyu noonu man su préféré man làmb ji sax ñu xool ne ñu ko defee huis clos moom wax dëgg yàlla ñun xamuñu ko suñu sport national yi ñuy def nii huis xamuñu ko si ñu gënal daal ci làmb ji mooy ñu bàyyi nit ñi ñëw seetaan si même bu ñu lay takk suñuy sax ñëw di raxasu ba set xam nga toog daanante sax loolu mooy ñuy gën a arrangé ñu koy def ay huis parce que huis moom wax vraiment moom xamuñu ko si suñu làmb national bi nii nii Sénégal fii waaw loolu moom soo amee daal yow yéen daal àndu ngeen si huis clos daal non moom wax dëgg yàlla moom duñ ko def defuñu ko daal parce que ñu xamuñu ko loolu moom affaire tubaab bi la je préfère ñu bàyyi ñu ñëw raxasu xam nga tak suñuy masque toog dandante sax au moins ñëw seetaan làmb ji mu neex ma am ambiance xam nga moo ñuy gënal quoi ay huis non a ngi wóor na yàlla lii xëy fii ci nit demut stade waa làmb benn temps bu ndaw la benn temps bu ndaw lañ fay def cinq heures balaa huit heures ku nekk jibi sa kër mu jeex kon kay mën na nañoo bàyyi gars yi dem rek xam nga ku nekk respecté mesure barrière ku nekk takk sa masque xam nga waaw mu ñëw mu neex mhm. oui. non loolu nga gis laa gis ko xanaa kon Ama Baldé yëpp ku la ko xañ. non Ama Baldé Modou Lô kenn waru ko xañ kenn ci Sénégalais yi lool bu ñu tëjee stade bi sax dañoo war a dem dajji stade bi dugg eh, seetaan ko mooy yoon Ama nga xam ne àdduna ñëpp moom la ñu xaar nga bëgg ko véhiculer loolu boo ko véhiculer ray mooy rey nga sénégalais rey nga làmb loolu làmb lay rey loolu combat bu dafa war a nekk combat boo xam mooy dekkal làmb mais warul nekk combat boo xam dañuy ñëw rek def ko véhiculer xam nga ku nekk toog sa kër loolu neexut quoi ah làmb moom ah ça dépend ci promoteur yi ko tëgg rek xam nga làmb moom tey bu ñu demee banaa véhiculer la maanaam kon maanaam a ah, doy na waar du dëgg parce que tam fii mu toll nii làmb dafa nekk loo xam ne nii mbooloo lay laaj parce que bu fekkee da nga lam di ko jaay ci ay daanaka daal du dem quoi du dëgg waaw waaw waaw loolu la waaw. kon daal yow àndoo ci huis clos. non man moom franchement moom parce que lam public la laaj. su fekkee ne ngay tëgg tamoo public bi daanaka moom li ngay tëgg moom yaa gën a xam. du sotti du sotti du sotti. dafa tin booy ñaa ñuy bëre sans kenn sans kenn ñëw loolu dina neex. non du neex du neex du neex loolu moom du neex moom yaa ma ko gën a Tafa muy fi muy fi. yéen a ngi gisante. oui oui ñu ngi gisante. Fodjé daa bàyyi laam ji wala dañ laa gëj a gis tamit. bàyyi wu ma dama amul combat comme li dal ñëpp rek moo la waaw. mais bàyyi yaa ngi woon mbooloo ba tey. maa ngi maa non maa ngi ah, ba tey ah nañ dem nañ asalem ah jóge fa ñëw marché Colobane ñu ngi dugg si Tilène Tilène nag bu ngeen am na koo xam ne fekk nañ ko ci atelier muy liggéey ay dàll ñu laaj ko sëñ bi ñu ngi lay ziar papa jërëjëf yàlla yàlla nangu ziar am nga jàmm ñu boole yooyu sant yàlla bu baax waaw fi daal naa fi liggéey daal naa fi liggéey ay saag ok waaw naam saag séminaire yooyu ngay gis ci ñi def ci séminaire yi ah, yu ci ëpp waaw yu ci ëpp fii lañ koy liggéeyee daal am na solo waaw léegi li may laaj bi mooy maanaam lambi huis clos yow en tant que defe naa yow da ngay dund lamb Sénégal waaw lamb day daganaa bee fukki dërëm dugg lamb fukki dërëm waaw loolu kan ak kan la woon loolu amoon na benn waay bu ñu daan wax booy Guèye Sall moom mu dëkkal Njaareem ok waaw kooku fay naa fukki dërëm dañ ma may juróom ma denc ñu dellu ma mayaat juróom ma denc ba muy fukki dërëm ma dox 4 kilomètres jóge dëkk bu ñuy wax Ngaboudia arrondissement commune Ngaboudia commune rurale Taïba Moutoufa arrondissement Ndindi département Diourbel dem kër Ngalgu seetaane seetaane làmb dem ba dagg bi fukki dërëm yooyu at xanaa yan année la woon loolu moom yàgg moom naa fan kon lambi wi ku la yow noo ko gisee ah loolu day xëy na dina arrangé mbër yi waaw ndax fi nekk jamono ji métti na lu ñu a def ba dara génn ci dugg ci ñoom. Mhm. dañ leen amal njëriñ. waaye nag làmb moom wax dëgg yàlla. Mhm. waa seetaan ko moo ko taxan a jóg. dem seetaan waaw dem seetaan làmb. Mhm. waaw coow nekk fi nga nekk ci tribune bi toog sa mbër mi ni kii ñu ñu ñëw dugg si. nga tëb dal songoo ki ah coow li loolu moo daan làmb. waaw wala la dee lamb lamb loolu la waaye nag bu ñu ko bëggee doxale noonu nag mhm. xëy dina annoncé mbëri ak ni jamono ji doxee moo waaye loolu moom du du adaay lamb lamb véhicule moom ànduma ci man mhm. en tant que amateur mhm. waaw parce lamb Iba Mar ma ko tardé Demba Diop noonu ambiance boobu daal moo nu gën a nee feebar bi tamit de ut solution nga foog waaw mais ñu jël mesure barrière rek comme ni ko football di defee basket di ko defee ñëpp di ko ni defee comme arène nationale bi yaatu na su fekkee juróomi téeméeri place la ñu xaaj ko rek. 22000 ñaar fukki junne ak ñaar la. waaw kon ñu xaaj ko rek def mesure barrière bu kii toogee nii kee toog ca banc ku nekk takk masque bu ñuy génn tamit ñu organiser ko comme ça police yi ñu doy rek comme promoteur bi jël bu dee 105000 la jël. Euh, état bi jël 105000 ñu boole ko ñu xool ci kaw turbine yi ku takkul masque ñu wàccee la. loolu daal moo ñu gën a ne ñu supporter daal ci discipline ak mesure barrière loolu daal moo ñu gën a. am nga mbër. non man nag amateur laa lam ju a rek laay dem. moom ngay xool ah. waaw. ma laaj ki nga langal maa ngi la ziar kilifa gi. waaw yaa ngi delloo ziar. tur bi Ali Waaj. Ali Waaj ah. Mhm. ok lambi huis clos ànd nga ci wala àndoo ci. lambi huis clos moom ànduma ci. waaw man daal li ma ànd mooy. Euh, ñu fexe xool nuñ ko organiser ba wàññi place yi ba nga xamante ne dina am distance. bi ci topp tamit euh, sponsor yi jàppale làmb ji parce que tamit bu ñu defee loolu te sponsor jàppale ñu làmb ji tamit làmb ji du dem. Euh, culture boo xamante ni Sénégal ñoo ko moom mooy làmb te bu toogee trois mois wala 4 mois wala 1 mois yoo xam ni mu tëj rek day metti ci ñëpp. mais ak feebar bi jarul wit la. non ja jarul wit ma waaw li tax yu bëri ñu ngi dox lee mi ngi dox lii mi ngi dox lam dafa doon loo xam ne ni ñi ci bokk moo bëri. ñi ci bokk moo bari jeunes yi nekk Sénégal bokk lam moo bari ay gone yu ndaw yoo xam ni lam kese moom la ñuy moom la ñuy dundee moom la ñuy bëggee waaw moo tax moo tax lam war du mën a tëju quoi. ba tey maa ngi biir rek comme ni ma ko defee asalem a Colobane kilifa gi maa ngi lay ziar. maa ngi dolli ziar Babacar. tur bi Assane Diouf. Assane Diouf. lambi huis clos la ñuy laaj tey gars yi ndax yéen amateurs yi lamb yi ndax ànd ngeen ci wala àndu ngeen ci. waaw nun amateurs yi moom suñu sañoon ñu defaat làmb ji comme na mu nekke woon rek mais wi ko moom wax dëgg yàlla man mii di seetaan làmb di yóbbu làmb moom man d'accord ma ci quoi wax dëgg yàlla. mais ak feebar corona bi ñu ne jegeñante bi la ñuy bañ tamit est-ce que bu huis clos amul dina waa waaw mais jegeñoo bi ku nekk ndax mars leen ñu ngi nii di jege jegeñoo kon ku nekk soo takkee sa masque rek mën nga kii sa bopp quoi. ku dem stade takk masque tamit man nga bañ a jot ci feebar bi. Mhm. aha noonu la demee ko waaw man moom loolu laa gis. Babacar déedéet man moom ànduma ci moom. Mhm. ndax amateur yu bari loolu neexu leen nun suñu sañoon suñu seetaan lamb dañuy ñëw timbari seetaan seetaan tous amateurs yi kontaan loolu daal moo ñu gën gënal nuñ maa ngi lay bëggee kilifa bi. waaw ak maagal. yow huis ko gisee. waaw gars comme li sa waay wax rek ñu bàyyi gars yi ñu bëre quoi mbëri essence sonn nañ trop gars yi ñu jàppale leen ñu bëre waaw. bu bëree moom nee dina am ci li ñu dégg daa mel ni nar naa am mais huis clos lañ fas yéene maanaam tëgg kenn du dem seetaani maanaam. mais loolu moom neexul moom franchement parle li neex moom moom gars yi dugg ci stade bi tiim mbëri seetaan naa ñuy bëre loolu moo dàq quoi pour man waaw loolu moo dàq waaw. ba tey ñu ngi marché moom ñu ko fekk ci jaay mi ma am lu ma ko laaj lu gàtt rek maa lay bëggee ça va Babacar yaa ngi jàmm. Ibra la ah. Ibra waaw. bu bébé Julde. waaw. <laughs> Ibra la fekk ci marché bi ngay dóor waar. boobu 5 la waa gis nga ñu ngi ci marché bi instant yi dem. mu mel ni làmb ji fan yii ak corona bi mars lañ mujjoon a bëre léegi nag ñu ngi wax waxi ubbi ko mais dañ ak huis clos yow ngay amateuru làmb est-ce que huis boobu ànd nga ci wala àndoo ci. waaw xam nga huis bi san dépend rek. Euh, bu fekkee waxtaan nañ ko am ay argument yu leer yoo xam ne nii dina mën a tax mu nekk huis clos. su boobaa du doon problème mais problème bi mooy que ne huis clos demee. mais loolu lañ waaw lool la ñu waroon a wax ba pare waaw dañu waroon a teg argument yi nga xam ne moo waral ñuy def huis clos su boobaa c'est ça le problème mais huis clos moom dana métti ci ñun supporters yi ñun amateurs yi nga xam ne en tant que le vice président association jeune amateur day métti ci ñun ndax ku wax lam wax supporter ku wax lam wax amateur kon huis couleur bi pour mu man daal d'accord d'accord naa huis clos bi nañ ko teg ci ay yu leer argument yu waaw waaw euh, amateur u nga defe naa de waa lamb bëgg naa ko maa ngi koy suivre mais kanta comme li ñuy woowee amateur fenn si Sénégal man du ma amateur boobu quoi bëgg naa ko nag mooy suñu sport national moom laay bëgg quoi di ko suivre mais nice quoi. boo ci dege ñuy wax huis clos maanaam nu mu la noo koy gisee yow. non huis clos loolu du débat. Hmm. loolu du débat loolu du débat ñi ñi koy wax ñoo la gën a xam ne du daba ah, mais feebar a tax ñu koy wax. non bu ñu ko bëggee ñu def lii lo ñoom ñoo on est là pour le sport dañoo war a génn xaalis bi teg taabal ji wala ñu sponsor yu concret. daal di koy teg ci table luy ko la doog a mën a ne mais nii nii faya faya yow sponsor yi sax dañoo daw lamb ji même bu nit ñi daggee billet di fay sax mënu ñoo fay mbëri ba pare ñu bëgg ko def huis clos ta nekk loolu. mën ta nekk daal oui. non Babacar lamb huis clos hmm. euh, na yoo xamante ni bu ko ci dugalee dañuy yàq lamb. huis clos fii Sénégal mooy loolu am na am na côté yoo xamante ne nii réseau bi demee wu fa noonu. soo defee véhicule duñ ko seetaan ndax ñun ay villageois lañ connexion bi demeewu fa noonu ñu ci bëri sax utiliser wuñu ko tey boo ko defee duñ seetaan làmb duñ ko seetaan dañuy yàqal làmb. Ah, mais ak feebar bi waaw mais tamit ñu xool nuñ ko defee rek stade euh, arène nationale bi yaatu na yaatu goo xamante ne nii mën nañ faa jël ku ne xoolal 3 mètres ngay toog sa morom toog 3 mètres du ngeen laalante du ngeen jegeñante ñu seetaan làmb bi normal ku ne dem ñibbi. lamb huit kilos ah, loolu moom dina doy waar loolu waay loolu moom ah. <laughs> ànduma ci moom xam nga lamb moom bala moo gën a neex ñamax-ñamax jaam am ci kaw gars yi moom di yëngal di ruube di rëjëx rëjëx di rëjëx rëjëx yi ñamax-ñamax yi waaw boobu day moo gën a neex moom waaw mais ak feebar que tamit du obligé ñu def ko waaw moo gën de moom moo gën ñu koy tëj ñu def ko huit kilos gars yi di maanaam mbëri mën a bëre waaw mbëri mën a bëre parce que loolu moom moo tane moo tane ñu tëj ko daal moo tane tëj bi waaw maa ngi lay bëggee waaw maa ngi lay ro bëggee Babacar tur bi Ousseynou Ousseynou waaw ah Ousseynou Ousseynou Ndour benn. waaw waaw Ousseynou Ndour benn. dëgg làmb ja ca Saame. waa gis nga de moom la de. <laughs> yow itam defe naa kon yow jeune promoteur nga donte ñëw Dakar mais yaa ngi tëgg ay làmb foofu vrai fan tey làmb huis clos yow nga dégg ko nu lay def. loolu moom moo ko déggee dina xaw a metti nag mhm. ci côté. Mhm. mais it dina xaw a arrangé mbër yi nga xamante ne ñoom lekk nañu ay avance mhm. war a bëre parce que mënuñoo toog yore avance te ñu bëre quoi waaw mais it dina xaw a metti ci promoteur bi aussi.

Euh, lambi huis clos defe naa ne yaa ngi dégg fan yi ñu ko wax ndax ñu koy wax ndax li ko waral mooy corona bi yow lambi huis clos jooju koo xam ne yàgg ngaa dem ci lamb di ko seetaan est-ce que ànd nga ci loolu wala déet nda yàgg naa dem ci làmb ndax depuis Moustapha Gueye ba léegi maa ngi dem ci làmb mhm. ay Yékini ak ñii ñëpp seetaan naa leen waaye nag lamb huis clos moom dëgg dëgg dëgg amul sens waaye nag bu pexe bu fekkee ne pexe amul ñun ñu fexe koo nangu rek waaye nag làmb wi kilo moom mhm. ay léewén lool amatul sens du sens làmb parce que làmb sa nga dugg tuus say amateur amateur yi taxaw tàccu la mhm. loolu mooy guwu làmb nga bàkku ñu tàccu la may la xaalis mhm. cérémonie dafa dafa neex si làmb mais làmb bu demee ba amatul cérémonie kooku amatul sens amatul sens mais ak feebar bi ah mais feebar bi yàlla ñu ko jox mbas la bu yàlla wàcce ku la ne mën na ko faj ku dul yàlla mi ñu ko wàccee rek moo ñu ko mën a teggil waaye du nit kuy dox waaw comme nag nee nañ fi mu nekk nii nañu dund ak moom nañu dund ak moom ndogalu yàlla moom bu xasee ñëw rek moom julli du def lu dul nangu mais nag moom 8 kilos moom bu pexe amul daal ba pexe amul mbëri war a a toog moo euh, di def année noir ñoo ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñàkk pexe pexe la ñàkk pexe pexe la bu boobaa ñu kii rek ñu ñu ñu def ko huit kilo waaye nag ñun ñi bëgg a de ah neexul si ñun de kon mbokk yi nga xam ne yéen ngi doon suivre ci Equivox TV dégg ngeen amateurs yi li ñu wax boo xoolee nag ñoom ñi ñu jël ñëpp ku ci nekk li nga wax mooy ñoom lamb huis clos dèjà ànduñu ci yaa ngi dégg am na ci ñoo xam na ci biir ne nañ bu mënta ñàkk nañ ko def yaa maanaam boo amul la nga bëgg am la fa sës kon li fi nag defe naa ne mooy bu fekkente ne dañ ne coronavirus bi ñëw na ba jàpp réew mi ba tax tey ñu ne làmb ji buñ ko ubbee kat sam waay faw ñu jël mesure barrière yi loolu nag bokk na ci huis clos ah kon état bi dégg ngeen amateuru làmb yi parce que ñu wax ñëpp ay nitu làmb lañ dañuy dem làmb waaw mais nag comme la fi wax rek xulle waxoon naa la ko amul la nga bëgg am la fa sës lii moo taxoon nag tey ñu génn jox nit ñi si kàddu ñu wax parce que ñi wax tamit ci lamb bokk te defe naa war nañ cee mën a joxe seen xalaat waaye li ci am daal mooy moom corona bi ñëw na ah marché yi nag ñu ngi yëngutu ñeneen a ngi ñëpp a ngi yëngutu ba lamb ji dem dafa war a yëngutu yaa ngi ñoom dañoo war a yëngatu waaye ñu fexe respecté mesure barrière rek bu fekkee ne dañu dugal ñi sax maanaam bu fekkee cent moo war a jug ñu dugal cinquante ñu sorente loolu lépp ay solution la yoo xam ne bu ñu ciy waxtaanee xëy na bu maanaam mën nañ ci amee loo xam ne nii bu keroogee maanaam kenn du mer ki di nga am loo mën a def gis ci sa bopp mbir jaar fi mu war a jaar di kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan 2021 bi yàlla na dàq 2020 bi ñu génne parce que li tax mooy 2020 moom ku ne xam ne ne metti na di ñaanal yàlla kilif yi génne àddina ak bépp doomu aadama yàlla yërëm leen xaare leen aljana waaye di ñañ jaale waa daaru moxti seen xalifa bi nga xam ne moo fi jógee ah di Serigne Abbas yàlla na ko yàlla jéggal xare ko aljana taaf ñu si barkeem am nañ ci yàqi ndax sëtu maam Cerno la borom daaru di nuyu ñëpp di jaan Sénégal leen fi yàlla def kontaan naa ci yow